fii ci Touba xibaar bi nga xam ne ñoo ngi ko fi waxtaanee mooy dafa am benn néew boo xam ne dafa jóge dakaar ci benn gox bu ñuy wax Pikina néew boobu nag ay mbokkam dañu ko bëggoon a denc ci armeelu ya waaye nag waa daayira Muxaddamatul Xidma ñoom nag bi ñu saytoo ne ki ñu bëgg a denc ya te mu jóge pikin borom ñaari tur yi la dañu ko daal di lànkal ay mbokkam na leen nag duñu ko fi daal di denc. waa jooju nga xam ne sax moom moo génn àdduna ci te ñu bëggoon ko fee ropp moom ay atam nag toll na ci fanweeri at ak ñeent maa ngi sant sax Fall ngeen mën a abonné ngir ngeen di man di jot bépp xibaara bu ñu dugal la